Aliou Cheikh Aliou ba waaye dafa amoon yéene mooy man ak yow ñu toog ma jox la yóbbante président waaye demal boole naa la diw ma dem fa mu yëkkati takku ni ma président ko def ci bis bi li ci président Macky Sall def it ab président mosu ko cee def moo tax léegi bi ma journaliste yi bëggee bu max bi ma nee na président organisé concours international sur le Coran ñu naan ma ndax loolu ab ñaxtu la ma ne du ñaxtu waaye laayee biir la laayee biir bokkut ak ñaxtu addiinu nasiha sunu borom subhanahu wa taala moo ne ñu dee leen bu ngeen xamee lu baax de dañ ko wax nit ñi ngir ñu koy def loolu moo tax ñu ñu recommandé ko pour mu def ndax Sénégal ni mu nekkee réewum lislaam si ah, maam yu tedd yi fi nekk ak ni xale yi mokkal alxuraan ba dem bay gagné asiatique yi indo yi naar yi arab yi ñoom ñëpp ñu dem fa bokk ñoom ko gagné leen loolu dul yomb loolu moo tax ñun ñu xalaat ni président war naa initier loolu te loolu da gën a yokkal promotion ci àdduna bi ndax tey ji bu nee ba fi gagné ko wala benn égyptien loolu dafay yëkkatiwaat turu bi donc loolu ñu ngi ñaar président mu def ko euh, suñu jigéen bi laa ci gàttal moo taxoon ma laajaat rajo yi pour ñu ñëw taxaw xamal ko ni euh, xaw naa yéex a ñëw waaye xayrul umur xawaatimuha mbir mi mbir mu nekk tëj tëj yi mooy mooy secret bi kon yow da ñëw fekk ñu tëj kon ñu ngi lay sant di la gërëm lii nga fas yéene bëgg a liggéey président ci diwaanu Thiès bëgg ko liggéey président ci ndaw ñi bëgg ko gox bi nga xam ne mi moom nga dëkk mooy Thiès Ouest bëgg ko liggéey président ci jigéen ñi yàlla gën na cee jàppale hmm. yàlla gën a cee taxawu di la xam ne ñëw gi nga ñëw daal réy na ci ñun ndax bu la neexoon ne kii miinu ma ko wala du sama militant wala mosuñoo bokk benn activité wala mosuma woote fenn mu ñëw fa waaye comme kon nag ko lebal te dañu ko fay ba nga ndax lu baax li muy witti mi ngi ci yow te moom am na kilifa nangu naa liggéey waxam bëriwul kon bu leen nee jàkk ngeen bokk kees bokk teen bu ngeen di roote bokk fi ngeen di sottee tagay kilifaam di waajuram di léppam nga gis ni muy doxi doxin wu rafet bu amee faayda da lay tax nga tax ko lu mu ñaan yàlla nangu ko te lii nga ko ñaan yàlla dina ko defal ni nga neex na yàlla ndax mboolem koo xam ne ki nekk na ci kees gii waxuma fi quartier bii mu dëkk képp waaye fu muy kees amal nga ko njukkal moom mii loxo ma nga fu ne président rek li nga wax moom dëgg la ci moom barki dem bi muy jaale si ca daaru fii rii diis maa nga toog la mu wax lépp maa nga toog la mu jaxal lépp maa nga toog nit nag bu lay defal lu baax bul ko xañ Macky Sall yàllaa ko fi teg te ku fi yàlla teg nangul ku ay di nga fegal sa morom jël moo aaye nañ ko yéene waañ palaat yi bari nu mu caat jërëjëf yow dara jómbale jëng baax nga Cheikh Mourtala Mbacke gërëm na la barki dem ku dem fii ci hôtel Maridien xam ni yow mii foo dem am nga fab cër Amadou Saloum yàlla na la yaa jàppale ci dara Sëñ Basiiru jërëjëf